asalaamaaleykum mbokki safo 7TV bisimila ci xibaaru digg bëccëg gi ci kàllaamay wolof nes ki sujuk leen di gën a fës dina ci bokk conseil euh, constitutionnel daal nay dàq ñaari bataaxali kàllaame yi nga xam ne jëbaloon nañu ko génn gi ñu jagleel ko Barthélemy Diaz euh, beneen bi Ousmane Sonko euh, ñeel jongante pencum ndawi réew ma ñu dëdmal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ndogal gi nag moom li ko daal di sabab rek moo di juróom-ñaari sages yi dañoo tënku ci article 182 ngir rotal bu boobuleeg euh, gis-gis bi nga xam ne génn nañ ko ñeel yooyule le euh, recours ci ponk yi dañuy àddu jëmale ci yëfi euh, Djiby Diop moom mi nga xam ne kenn la ci parti bi di APR te ji ci aljuma ji ci suba lañ ko daal di defeere moom dajem ak ñetti fournisseurs yu mu doon liggéeyal nag la ñuy daal di toppee wàllum lu bal kopparuk réew mi loolee nag toll ci fanweer million ñu jàpp leen ne ci suba ñu ngi ca CAF bu tribunal bu grande instance bu Ndakaaru dañ koy jeexalee ak wàllum tàggat yaram niki tey ji Sénégal na jàkkaarloo ak Malawi ci stade lay Wade ñel nag jagante wu am solo ñu sukkandikoo nag ci Pape Thiaw mi nga xam ne fi mu ne nii moo yoragum euh, leng yi laata nag ñuy tànn kay uttu wa Cissé euh, waaye daal bu sukkandikoo seen jongante bi nga xam ne def nañu ko ak jàkkaaru taskatu xibaar yi daan dikkat nag ne daal Sénégal moom amul rek benn sañ-sañ lajj nag bi lekk euh, jongante mbokk yi ñetti ponk yi gën a fës boo leen taaxirloo ñu dëkk ak yéen ci yaatal gi. jaajëfal leen bu baax a baax ci teelu bi ànd bekk 7TV dañu koy tàmbalee conseil constitutionnel joxe na kàddoom ginnaaw bi ñu ko jébbalee ñaari bataax li clamé benn bi dañ ko jagleel Barthélémy Diaz beneen bi Ousmane Sonko ñeel jongante pencum dayu réew ma juróom-ñaari kilifa yi féetewoo ci bànqaas seenu gën a kawe génne nañ seen ak ndogal daal di dàq nag yooyu yeeg bataax li clamé na daal yooyu nag teguwul ginnaaw rek ba ñu tënkoo ci article 182 wa ñu jébbaloon ñeent suppléants yu passé fi itam daan na koy dàq leeral gi ak Mamadou Conté. dogal bi conseil constitutionnel jël mën naa jur bànneex ci list bu Pastef bi nga xam ne ni ilimaanu jëwrin gi moo ko jiitee waaye tamit ci list bu coalition sàmm sa kàddu mi nga xam ne ni maire bu Dakar mii di Barthélémy Diaz moo ko jiite ñaari list yooyu nag dañ leen demoon clamé ji gannaaw bi nga xam ne ni ministère de l'intérieur ak bu sécurité publique nee nañu mën nañoo bokk ci jongante législative yi ñu jëm lu ñel nag list bu Pastef coalition bi di tàkk wàllu Sénégal moo kalaame ji woon conseil constitutionnel bokk Ousmane Sonko mi nga xam ne ni moom mooy seen tête de liste waaye tamit seen liste suppléant bi nga xam ne ni neewoon na ni ñu ak règle parité bi nga xam ne ni dañu ko laaj ci joŋante yi gannaaw yooyu le recours nag juge conseil constitutionnel daal di dàkk yooyu la kalaame ndax jàpp nañ ni liste bu suppléant bu Pastef sàmmante nag règle bu parité boobee ñuy wax te lu ñeel nag Ousmane Sonko mi nga xam ne ni moom moo jiite liste nationale bi ñu jàpp ni bu ñu sukkandikoo ci article 182 bu code électoral ministère bu yor wàllum élection moom rek moom moo war a def kalaame googu ci wetu conseil app bi jot dañuy jàpp ni nit kookule war naa mën a bokk. li ni mel moom ma xewit ci mbirum Barthélemy Toye Dias mi nga xam ne ni coalition ànd liggéey sunu réew dafa demoon kalaame ji ngir ñu génne ko ci liste national bi nga xam ne ni moom la jiite ci sàmm sa kàddu ñu sukkandiku ba tey ci article 182 boobee tax ba ñu jàpp ni Barthélemy Toye Dias war naa mën a bokk ci jongante législative yi nga xam ne ni moom lañu jëm ñeent fukki liste ak benn yi nga xam ne ni direction général des élections nangul ne leen seen candidature yëpp conseil constitutionnel daal dina koy dëggal li ci des moom mooy ñu imprimer bulletin yi dem taataan baatu askan wi ngir jublu ci bañ gàcce ya lu mooy gëgëy ponk Modou Konté dañuy àddu jëmale ci Jigi Diop bi nga xam ne yoon daan na koy teg loxo teg ko garde à vue ginnaaw ba mu ko déglee ni ki démb nag ci alxames ki yóbbu nañ ko nag ni ki tey ca tribunal ba waaye wéetu fa moom nag ak ñett ñi nga xam ne ñoom na doon liggéeyandool ak itam euh, dage boobule jàppale na li ñu di toppee bokk na ci wàllum luubal euh, koppar euh, gu waral rek ci li nga xam ne moom la ko dénkoon ci liggéey ci nguur ak ma Sall koppar gañ cey na ci fanweeri million millions ci suñuy euh, koppar mbir ma nag fi mu ne nii ma ngay wëy dinañ ci xam dara laata rek euh, suñu yeneen jotaayu xibaar ba tey dañuy des ci coowal Djiby fu ñu koy euh, jàppale tonk ci APR di kuréel gu mu bokk ñu ngay gën di fësal seen bopp ñoom nag lu ñu wax rek moo di Djiby Diop nag moom li ko dar rek moo di fi nga xam ne rek foofu la taxawee ci wàllum politique loolee waral nguur gi yees gi daal di koy teg lii waaye na nag ñoom duñ ci ànd ak pat pataaral rawatina nag banque seeni yoxoo fas nañu daal ne seen bopp bu baax euh, ci jongante yi nga xam ne ni ci la ñu jëm ci fukki fa ak euh, juróom-ñaar bu ko defee rek euh, ñu daal di nag won loo xam ne Pastef dina rek deltu ginnaaw bu baax a baax ci doxalin yi nga xam ne ci la nekk. asamaan su xeen si ak poto poto yi teewul nag ñi ñëw bari fi lool ngir taxawu seeni xarit jéggi Diop ca division des investigations criminelles. ca ndorteel gi kenn ci ñoom police daal di koy teg loxo. suñu camarade bi nga xamante ne muy Moussa Sow jàpp nañ ko vraiment ñu ngi demandé à ce ñu bàyyi ko. jéggi Diop ci ab vidéo yi nga xamante ni jox nañ ñu ko ñu daal di ko ciy gis amul benn tiitaangi. bi fi nekkoon directrice générale de la promotion de l' économie sociale et solidaire ñu daal di koy woolu nag muy ñetti yoon ñi koy jàppal tonk jàpp ni li mu noppiwul moo tax ñu bëgg kaa wutal pexe. kii ki déranger beaucoup de gens déranger aussi le le régime en place parce que nag nit la koo xam ne elle se fait bien la communication et est toujours sur les médias. politique la benn côté dañ ko ciblé parce que moom nekkul ministre nekkul DG. ñooñi ne dinañ toog gouvernement bu bees bi wante nag ji élection yi ñu jëm lañ koy daal di defee. su ñu jëm xam nañ saaga duñ fa yóbbu xas duñ fa yóbbu def naka sa dul doon duñ fa yóbbu xam nañ lañ ko mayoon xam nañ ñu ko xañ dinañ jaaraat ca tànk yi ba jëlaat li ñuy jël toog jàpp suñu yàmm ñun loolu mooy suñu combat. ñoom ñoo newoon rupture ñoom ñoo newoon sénégalais yi bu ñu toogee deux mois dinañ faj seen soxla tey ñoo ngi ci sept mois fu mu nekk ni ñaata at moo leen dese. ñu bari lool ngir jàppal tonk gi ki bàyyeekoo ci APR ñuy naqarlu anam gi nga xamante ne nag Diomaye ak Sonko ñu ngi koy amal soxal reddition des comptes yi ñu ne bu ñu sañoon ñu ngi ciy joxoñ baaraamu tuuma ñu daal di fësal ab list ngir rek askan wi daal di ci am lu leer. yëfu cuune mooy jël sa bagage dem ba foofa ñu lay wàññi quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre ku mën a doon du yoon. ba tey ci tënk Abass Fall daal na yóbbu taskatu xibaar bi di Adama Gaye ci yoon li ko war a bokk na ci coowal ASER bi nga xam ne da ko caa tudd ne daal dafa lubal koppar ko toll ci juróomi milliards jotee ko nag ci investisseurs yu espagnol yi lee ñeel liggéey bi nga xam ne daanaka dénkoon nañ leen ko ci daaxu kaw yi ak itam nañu ko war a leeralee ci ay làmp loolee nag euh, ki ko xamle woon di rek taskatu xibaar bi di Adama Gaye ne daal koppar gi nga xam ne Abass jot na ko loolee nag ngir rek mu ñaax nag Jean-Michel Sène mi jiite ASER ngir rek nag mu yi ki nga xam ne moom la joxoon projet bi féetewoo fi nag ci Sénégal yëf moom Abass Fall daal na koy kalaame ci yoon te bëgg nag daanaka lépp leer ci li nga xam ne loolu la ñu koy euh, tuumaal wéyal xibaar yi àddu ci geneen ponk bokk na ci jopte yi nga xam ne daanaka indi nañ ko ci charte ndaw réew mi donte nguur yi fi weesu itam am na ci ay liggéey yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci ba sukkandikoo ci limankan bi Lex Africa assises nationales yi ak yeneen i mbir yoo xam ni ay waxtaane ko sóobu woon ba tax ñu daal di cay yegg waaye moom nag am na ci yeneen gis-gis ku yees suñ ci ànd ak moom assise nationale jaarale ko ci commission nationale des réformes ci ay réformes institution ñoom ñi ngi daal di fësal ci seenu jeexital gis-gis bu nga xam ne kat day daal di dajale ñëpp firnde gi mooy wàllum justice sociale wàllum équité ak égalité ci ay citoyens yoo xam ne kat ñoom ñëpp ñoo daal di tolloole ak ak yelleefam ba tey conclusion yi daal la muy fësal ne ab modèle de gouvernance loo xam ne day gën a dëgëral institution yi jaarale ko ci wàllum démocratie loo xam ne ñëpp dañ ci dugal seen loxo ak approche bi nga xam ne daal ñëpp dañ ci daal di bokk cadre boobee nag moom day tax wàllu am ci nguur gi ak ña nga xam ñoo ko sekk rawatina way politique yii Diomaye ca bañ ko daal di fale ci premier tour ci ya présidentielle ki nga xam ne nag mooy Eliman Abikane di analyse gouvernance ci wàllum politique publique di président cinq cinq Lex Africa ma ngay fàttali ne moom Diomaye dafa waxoon ne kat dana daal di aar yiir wàllum constitution bi waaye itam daal di inspiré wu ci conclusion assise national la ba tey nee na nga xam ne kat mooy ndoon lii nga xam ne moom la ñu daal di fësal waaye léeg fa ñu indi ci rupture ci nga xam ne kat mooy daal bëgg rek di méngale suñuy doxalin ak wàllum tugal ndax noonu loolee daal suñu doxalinu bopp la loo xam ne kat ñoo koy moomal suñu bopp waaye lépp askan wi yëpp dafa delluwaat ci ñu gën a impliqué askan wi naam waaye tamit ñu gën koo yombalal gën koo daal di yaa euh, simplifier maanaam jaarle ko ci làkk réew mi bu ko defee ku ci nekk daal xam sa sawal ci nar wii cadre boobee nag day tax rek naam di nga xam ne mooy wàllum noonu la ni gën a leer waaye ñu indi ci ay coppite loo xam ne kat day tax rek ci wàllum transparence ak ku ci nekk dugal ci sa loxo loolee gën a ñoŋ waaye moom Eliman kan nee na li nga xam mooy wàllum vote kenn mënu ko fàtte ndax gis na ne lu am solo la ci régime bi nga xam ne kat moo fas indi ay coppite waaye loole dafa delluwaat ci ñu gën koo gëm mu gën a sax ci askan wi. wax ci daara yu kawe yi bokk na ci liggéeykat ci féetewoo ci diwaanu ko kujdu ñoom nag dañoo rek mer ba futtu di sàkku ci kilifa yi ñu xalaat bu baax budget bi nga xam ne moom leen nattal ngir atum 2024 toll ci ñaar fukki milliards bu ñu ko méngalee ak atum daaw demoon na ba egg ci fanweeri milliards lañ ca teq toll ci fukki milliards nag jàpp nañ ne dina am ay njeexital yu doy waar ci anam yi nga xam ne ca la ñuy liggéey waaye tam anam yi ñu fas yéene toppatoo nag ndongo yi ngir seen nekk ci daara yu kawe yooyu gën a ñoŋ lu mooy loolu meenum xibaar bokk na ci njàng bekk njàngale mi dañu ko tàmbali fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk. gannaaw buñ nekkee di jànkoonteel ay jafe-jafe yu métti intersyndicalu liggéeykat yi nekkee ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoo daal di génn wax. ngir rek daal di interpeller gouvernement bi ci jafe-jafe yooyee nga xamante ni ni moom la ñuy jànkoonteel mais ñu jàpp ne suñ tijjee la 19 balaa mois de décembre su nekkee état bi intervenirul université mun na dem si ay jafe-jafe yu metti yu ko mën a puusaat ñu tëjaat. subvention bi tolloon si trente milliards de francs CFA ci atum deux mille vingt ren ñu jot lu tolloog vingt milliards de francs CFA fukki milliards yi nga xamante ne nii moom lañ daal di wàññi. loolee nag bokk ci lu leen nakar yi ci jamono ji nga xamante ne nii ndongo yi war a ñëw ren ci université bi dañoo daal di yokk bu baax a baax. étudiants suñ koy indee ñëpp xam nañ ne yemul rek loger leen suñ leen loger. dinañ leen restaurer dinañ leen jox ñu lekk suñ leen joxee ñu lekk suñu feebaree dañ leen di faj ginnaaw loolu seen sécurité ñun ñoo ko yor seen activité culturelle et sportive ku da ko yor si loolu yëpp ñu jox ñu vingt milliards. yooyu la jafe-jafe yu ñuy jànkoonteel nag tax ba liggéeykat yi nekkee foofu ca université bi di yëgle nii bu ñu mayul dinañ dàqal seeni liggéey ba fi ak ñuy toog waxtaan. ba indi ay saafara ci li ni mel. am na fu muy yegg dootuñu mën a dëkkal étudiants yi am na fu muy yegg dootuñu mën a faj étudiants yi moment yu ñuy wax ak yéen lu ñuy woowee repreneurs yi mooy restaurant yi dama ne étudiants yi su ñëwee dinañ leen dëkkal mais dinañ leen jox ñu lekk ñooñu la ñuy woowee repreneur ñooñu nee nañu dañ leen yoreel bor yoo xam ne bor yu yàgg la. seen bor yooyu nag ñoom repreneur yi mënatuñu. naam sax jafe-jafe yi daal na bëri lool ci université bi teewul li ni mel ñu ngi def liñ mën ngir rek étudiants yi daal di nekk ci jàmm ci campus bi lekk am fu ñuy fanaan wante tamit di xamle ni pare nañ ngir daal di tàmbali njàng meek njàngale mi. addu ci wàllum ah, tàggat yaram Sénégal Malawi ni ki tey ji jongante bi dinañu ko amal ci juróom-ñaari waxtu bu jotee ci stade ah, Abdoulaye Wade bu Diamniadio ah, bu ñu sukkandikoo nag ci Pape Bouna bi nga xam ne moo yoregum gaynde yi ginnaaw seen jël nag taskatu xibaar yi Sénégal nag moom mu def kémtu lay kàttanam bañ a lajj ci jongante gi leen ndax na teelu ko bëccëg bi éliminatoire bu CAN 2025 bi nga xam ne daañu ko bëral ci diwaanu Maroc dañuy teew li kàddu maintenant ce c'est daanaka lépp noppi na amatuñ dara lu ñuy xalaat waajal nañ suñu bopp altine ba tey bu ngeen ko xoolee sax entraînement bi dafa safoon sàpp bari intensité xale yi am nañ détermination am nañu pas-pas. Euh, après notre match. Euh, su ma koy fàttaliku rek bi ñu jógee suñu jogante ak Burundi foofu ca biir Malawi dañu toog waxtaan xam ne nag weeru octobre bi moom du am dara lu yomb gis ngeen ko nag xale yi firndeel nañu ko. c'est Euh, pour pouvoir euh, gagner le match liggéey nañ liggéey nañ lu bëri sax loolu noonu yëpp nag ngir am ndam la bu loolu weesoo nag li ma fas yéene teg moom du fii laa koy waxee du ci avant match. waaye ci terrain bi lay nekk lañ koy wane. waaye daal ñu ngi yaakaar ni pexe yi nga xam ne daal dinañu leen lal lépp dana dox. qu'on en place et les choses qu'on a mis des ba tey ci xibaaru jagleel wàllum tàggat yaram bi léewoon day soxal nag làmb ji ak ñi yëngu ci wàll wa amoonoon lajee ak ki nga xam ne mooy di jërum ñuy dénk wàllum tàggat yaram ngir xool kan rek mooy toogu ci CNG wile waaye nag yi fi amul déggoo donte jëruñ gi sàkku na ci ñoom ñu waxtaan indil ko nag ñetti tur goo xam ne dina rek amal tànneef bi talaata gee di ñëw waaye am na ñu bëri ñoo xam ne rek ànd ñu ci xalaat googee ba tax sax nag dañu caa gedd amoon yi jiixi jaaxa nettali gi ak Grégoire Samangom mu mel ni CNG dikkati na ci kanamu làmp yëpp jamono ji nga xam ne rek ñu ngi doon xaar ñu tabb njiit lu yees ci alxames gi ministre des sports daal di delloo bal bi acteur ya ci samu sukkas ndiku man dama bëgg a demee ak un démarche inclusive bi nga xamante ne kilifa réew mi mooy la chef de l'État le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye la chef du guvernement la premier ministre Ousmane Sonko ñoom ci démarché inclusive boobu noonu lañ ñu tënk te ci yoon boobu lañ ñu teg nañu lépp li nga ne dañ ko na ngeen toog waxtaan ci ak ñi ngeen ko séqal mu mel ni rek doxalin bile wuute na rek ak li ñu yàgg di gis. tànneef bi nag prérogative boobu noonu texte yi état du Sénégal la ko jox maanaam état du Sénégal mooy administration en charge du te man mi maa nekk ci kaw bopp administration du bi man maa am prérogative bi tànn ki nga xamante ne moom moo nar a diriger CNG de lutte bi ma nag. xëy na gannaaw am naa prérogative mais man duma ko doxalee noonu. xalaat ak i gis-gis yoo xam ne rek daañu yóbbu Khady Diène ñu jox ko bu ndaw la mu bëgg moom mooy ñetti tur ya ko acteurs yi jox loole ngir rek mu tànn ci talaata gi ñu jëm waaye lu ni mel mel ni rek yenn ci acteurs yi ànd ànduñu ca ba tax nañu gedd. sorti parce que tendance bi mu jël neexu la le ministre présenté wax objectif am ne dinañu déglu kuréel bu nekk. ku nekk wax li xalaatam ñu dem proposer ko lu musul am y'a y'a y'a y'a un un hold-up qui était déjà monté ah parce que des gens sont venus prendre la parole ne Bira Sène ñeneen ne nii ma xam ne 80 pour cent yi bu ñu ne Bira Sène c'est un truc monté la mu teg moom mooy mais là je vois dans un montage ku jóg taxaw ne waaye nous euh, association bi euh, CNG neex nañu il faut qu'il reste la vérité elle est là. kon da nga jàpp ne teguñu ko ci yoon. nañu respecté yëf laa wax. coow am na la laata installation. Bira Sène ndax dañu koy tegaat wala déet jamono ji dara leeragu ci li ci leer ba leer rek moom mooy pataas bu tàng bi mu ngi ci loxoy Khady Diène jërëjëf Grégoire waaye dañuy des nag ci ndaje googee Gris Bordeaux itam jiite ñi nga xam ne rek ñoo di mbër yi daal na yëkki nag ay kaddu bokk na ci layal mbër yi bu fekkee dem nañ ba jël seen retraite ak nañu fas ne gunge nag canam ñu fas yéene nekkee kaddu yooyu mu ngi ko jébbal jëruñu dénk ñu dénk yaram. xam na xam na ni tuutu surtout catégorie gu ndaw gi xamal nañ ni ko ne tey làmb dafa war a dépassé fi mu nekk madame la ministre xamal nañ ko ne ko euh, reconversion des lutteurs dafa war a am parce que si parce que dafa am état bu bees bu fi nekk war a yokk sénégalais yi mbër dafa ànd ak métier mbër dafa ànd ak liggéey tool yaa ngi fi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jëm ci ay Jeux olympiques. ak yeneen ak yeneen mbër yi dañu war a am yeneen activité bu dul làmb rek mbër dafa war a di bay mbër dafa war a def yeneen sport mbër dafa war a am yeneen activité am na si suñu bëri yoo xam ne métiers yooyu dañu commencé bàyyi ko te te gis ñu làmb làmb commencé sënkeem kon làmb dafa ànd ak métier làmb dafa ànd ak formation làmb dafa ànd ak état encadré la parce que nous sommes plus de huit mille et quelques. bu ko defee dañuy àddu ci ponk gu mujj gi dañu leen ëtt yéen kay. ak jaam yéen kaay bëri di kàddalan seen xët bu njëkk ci ajuma ji garde à vue bu ñu teg garde à vue ki nga xam ne moom a nee na moom dañ koo ah, ne kat enquête ak dage ministère bu économie sociale ak solidaire ñoom ko daal di dugal lañ koy toppee rek yoo xam ne da ko daal di luubal moom nee na kat loolee dara wax yooyu da ko daal di teggi bu sukkandikoo ci les échos nee daal li nga xam ne jéggi jéggi jóob nee moom takkawu ca laalu ca waaye tam la tax mbir

BCEAO kaay bi nee na kat daanaka sax mbir mi lëndëm ko ruus ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar yooyee banque Santander moom la bëgg daal moom dañ fay ay prime la tribune nee kat dëgg la waaye nay leer nag moom nee na xam la bëgg rek mooy euh, autosaisine bu pôle judiciaire goon nañ wa wala dëgg la waaye alliance de la république ci géej waaye moom dañoo rocci troupe nen na Fatoumata ci liste majoritaire départementale bu géej taxawaay ci coalition jàmm ak njariñ partisan yu Macky Sall nee na daal Amadou Ba moom ci day gasal sa morom ma ba na ca géej waaye moom daanaka APR ak nga xam mooy Amadou Ba ba a ne daal comité électoral bu alliance des forces progrès tamit di na liste bi nga xam ne mooy ki ko daal dirigé muy ancien premier ministre Amadou Ba laas di gàtt ci ëllëgu nga xam kat mooy parti traditionnel yi fi nga xam yàgg fi loolu la ndax daanaka sax lii mooy seen jeexetal ci wàllum taarix bu ñu sukkandikoo ci yéene kaay bi ne contexte politique a kat ñoom amuñu naam ab base waaye gis nañ ne la bëgg rek mooy ca cappaandoor bu ñu ci ñu xam kat ñu leen dënkoon mën na ko ba tey ah, gis nañ ne daal am ci ay différence naam waaye gis nañ ne kat ci li nga daal mooy parti yi parti traditionnel bu defu bi Sénégal atteindre na li nga xam ne mooy cent mille barils par jour kooku daal di fësal mooy Richard Goyder moom mi nga xam ne kat moom euh, njiitu réew mi doon dalal investissement mi nga xam ne moo ñeel juróomi milliards ci dollars daanaka ñu ngi ko daal di xayma muy euh, daanaka mooy trois mille milliards francs CFA loolee tu ko ci Woodside loolee kat ci la daal di rousser ba tey euh, record ci wàllum tàggat yaram ne daal mat bi nga xam ne moo war a am tey ci diggante Sénégal ak Malawi dañoo war a gagné waaye itam ba li nga xam ne kat mooy sikki sàkka si jeex ba tax na gaynde kat war na fulaak fayda daa ngeen jëf jërëjëf Oumar Diarra fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfaleen bu baax ci teewlu bi ànd beeg 7TV dig daje ci kanam tuuti ci xibaar ci tënk bu juróom waxtu jotee ci kàllaama nasaraan ak wolof jaa ngeen jëf